الحمد لله الحمد لله حمدا طيبا كما امر احمده تعالى واشكره وقد تعزنا بالزياده لمن شكر وبالخساره لمن كفر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ارضاء له وارغاما لمن جهد به وكفر واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد البشر وشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه الصادات الغرر ومن تبع سبيلهم وصار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون مكيتي الله تبارك وتعالى almaau nicmatum min nicmillah ndox xéewal la ci xéewali yàlla yi tabaraka wa taala wa ixsaanihi ala ibaadihi moom yàlla ndox mi muy wàcce rafetal la jóge ci moom jëm ci jaam ñi laa yustaxna anhu nit ñi mënuñu am dara ci kaw suuf lu remplacer ndox kenn mënta dund lu dul ndox lépp lu am ruu ci kaw suuf mënta dund saa ndox borom bi nee na wa ja'alna min al ma kulla shay'in hayy afala yu'minun lu tax du ngeen gëm yàlla xanaa xamul leen ne lépp luy dund man borom bi tabaraka wa taala ci ndox laa ko sàkkee wa fi nuzulil amtaar hikma baaliga sunu borom subhanahu wa taala asamaan si xiin gi mu koy xiinal asamaan si taw bi mu koy tawal ay mbiram moom yàlla xereñam yoo xamante ne kenn mënu koo natt kenn mënu koo peek yooyoo ci nekk xiina yataqaataru ala al ard li amma bi shaqihi jamono joo xamante ne borom bi tabaraka wa taala defar na ay niiram wàcce tawam ci kaw suuf si da ngay gis suuf si dundaat dex yi feesaat àll yi naataat garab yi saxaat doomu aadama yi ak bàyyi ma yépp nekk ci jàmm wa huwa alladi yunazzilu algays min baadi ma qanatu wa yanshuru rahmatah wa huwa alwaliyu alhamid moom yàlla jalla jalaaluhu wa azza kamaalu moom mooy wàcce towam ginnaaw ba doomu aadama yi seen yaakaar tasee moom yàlla mu tasaare yërmandeem moom yàlla moom lañ war a jublal sunu mbir ndax moom mu ajoo sant waaye wa iza taaxara nuzulul amtaar dajjal ibad su taw bi yéexee wàcc comme jamono ji doomu aadama yëpp fu nu nekk kenn du am jàmm dajjal ibad ñépp ay ñaxtu ku nekk ay wax lii moo tax lii moo tax lii moo tax wa saqmatul mawaasi wa halakati zar rab yi dee jur yi dee mbay mi daa di dee garab yi commencé dee déeg yi commencé ŋeer teen yi commencé jeex borom bi tabaraka wa taala laaj ñu ab laaj ci alquran mu ne qul araaytum in asbaha maaukum xawra fa man yaatikum bi ma in main waaw yéen ndox mi ngeen di jëriñoo ndox mi ngeen di dundee man seen borom tabaraka wa taala bu ma ko ŋeeralee su ma ko jeexalee bu ma feralee dex yi ŋeeral teen yi ana kan ngeen yaakaar ku leen di indil ndox ku dul man borom bi tabaraka wa taala mu ne qul maa ya'ba bikum rabbi lawla du'aukum faqad kazzabtum fa sawfa yakunu lizama man jalla jalaaluhu wa azza kamaalu su ngeen ma dul woon ñaan na ngeen yëg ne duma leen faale lawla du'aukum su fekkoon ne du ngeen ma ñaan yàlla man yàlla tabaraka wa taala du ngeen ma tàllal seen loxo na ngeen yëg ne man fa duma leen faale waaye yëg naa ne faqad kazzabtum fa sawfa yakunu lizama weddi ngeen loo xamante ne ëllëg résultat bi ci seen kaw lay teere mbokk yi aljadbu wal qaxtu balaaun min allah maral ak bekkoor nattu la balaa la musiba la bu bàyyeekoo ci yàlla lu tax yàlla di ñu ko teg li yaalama man yuti wa man yaasi ngir yàlla moom yàlla jalla jalaalu mu xam ñan ñoo koy topp ana ñan ñoo koy moy wa man yaskur wa man yakfur ana ñan ñooy sant waaye ana ñan ñooy weddi ca jamono yooyu yàlla di wàcce nattu muy maral ak bekkoor ci jamono jooju wa fi hadihi alxaal شرع لنا نبينا محمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء jamono bu yàlla di natt di wàcce bekkoor di wàcce maral jamono jooju la sunu yonent muhammadun sallallahu alayhi wa sallam yoonal ñi ci ñun sant ñu sunnaal ci ñun ñu julli julli baaw naan lan mooy salaatul istisqa lan mooy julli baaw naan huwa talabu saqiya wa su'aali algays min almugiis jalla wa ala mooy dañuy tàllal yàlla sunuy loxo di sàkk ci moom mu nàndal nu danoo mar mu nàndal nu danoo xiif mu jox ñu ñu lekk sunuy tool sunuy teen sunuy déeg dafa ŋeer ñu sàkk ci moom moom jalla jalaaluhu mi xettali waate mu xettali ñu fa nufuus albashariya majbuula ala talabil gays mimman yugiisuha waaye doomu aadama ni ko yàlla bindee chaque jour moom doomu aadama dafay aajowoo muy tàllal loxo ku koy xettali yàlla te moo tax yàlla natt ko pour muy tàllal moom doomu aadama yàlla ay loxo pour yàlla di ko xettali ixwatal iman doomu aadama moo soxla yàlla doomu aadama munta dem sans yàlla moo tax sunu borom teg ko natt pour mu tàllal ko loxo pour mu xettali ko pour mu yërëm ko pour mu jéggal ko ay bakkaaram pour la mu yàq doomu aadama man koo defaraat wal istisqa min sunani al anbiya wal mursalin alayhim assalatu wassalaam qaala taala wa iz istasqa muusa li qawmi lii di julli baaw naan nekkul ne ci lislaam la tàmbalee déedéet sunnaa yonent yi fi jiitu woon la ñoom yonent yooyu saa yu ñu yëgoon ne soxla nañ ndox dañuy tàllal yàlla seen loxo ñaan ko moom yàlla mu may leen ndox waaye sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam la julli baaw naan sunna yonent la ci lislaam xamunu baaw naan ay góor sol yërey jigéen ay jigéen sol yërey góor wala di bokkaale di dem ci ay xaaw wala dem ci ay tuur wala dem ci ay ëkk wala dem ci ay guy góor ak jigéen góor ñi sol yérey jigéen jigéen ñi sol yérey góor ñuy tëgg di naan sàngara di sotti ci guy yooyu wala kuur yooyu wala xamb yooyu loolu bokkul ci lislaam wala di tëggi sabar jaar ci mbedd yi maam yàlla dañuy baaw naan di yuuxu loolu bokkul ci sharia islaam julli baaw naan sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam la xam ngeen ne Moussa alayhi salaatu wasalaam soxla woon na ndox mu tàllal yàlla ay loxoom borom bi nettali ñu ko wa is istasqa Moussa li qawmi Moussa keroog ba mu ay nitam ya mu àndaloon soxlaa ndox daal di koy wax Moussa moom Moussa dafa ñaan yàlla moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu def ko wa qad istasqa xaatamu l anbiyaai wal mursalin nabiyuna muhammadun sallallahu alayhi wa sallam li ummatihi maratin mutaaddida ala kayfiyat mutanawia lii di sunna yonent bi di julli baaw naan yonent bi defal na ko xeet wi ay yoon yi yoon yi yoon du benn du ñaar du ñett ci ay façon yu wuute ay façon ñaan yu wuute yonent bi alayhi salaatu wasalaam def ko beneen bi mooy bu kenn ci ñun yaakaar ne ñun dañoo am ay martaba yoo xamante ne tey bu ñu ñaanee rek yàlla may nu dañuy ñaan kuy ñaan da ngay tàllal sa loxo waaye balaa ñaan gi dafa am lu ko jiitu mooy mbokk yi jéggalu suñuy bàkkaar ndax xam nañ ne nun ñii li téye ndox mi nun ñii la góor ak jigéen mag ak ndaw ku nekk fi nga toog xam nga sa bopp balil insaanu ala nafsihi basira ku nekk la nga def nit ki mën naa wax ne man de defuma dara benn jigéen dong laa mos a teg loxo loolu kese yàlla mun na cee mere adduna bi téye ndox mi kenn ki mun naa wax ne man de mus naa tardé julliwu ma nangam loolu kese yàlla mën na la mën na cee mere jaam yi téye ndox mi kenn mun naa wax ne man de mus naa lekk dërëmu jàmbur xëy na muy xeeb yu ndaw yooyu fekk xëy na gis nga yu ndaw ndawaan yooyu ñuy xeeb kenn ci ñun moom kenn mën na lor jaami yàlla yi ci kaw suuf yëpp ci benn bàkkaaram boobu mu def bàkkaar yi loolu moo tax ñu naan nañ ko mooy tëndiku ndax xamuñu ban moo ci merloo yàlla subhanahu wa taala ixwat al iman ibnu abbas nee na radiallahu anhu xaraja rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lil istisqa mutazallilan mutawaadian mutaxaashian mutadarria ibnu abbas nee na benn bis ba mu dalee jamono yonent fekk moo ngi dund mu daa di am bek maral am bekkoor am yonent bi alayhi salaatu wasalaam daa di génn pour ñaan yàlla pour yàlla may nu ndox waaye mu ngi génn di toroxlu mu ngi génn di suufe suufelu mu ngi génn di torox yàlla di toroxlul yàlla mu ngi génn di wàcce ay mbaggam ak ay dën ak dënnam moom yonent alayhi salaatu wasalaam anas ibnu malik radiyallahu anhu mu ne anna rajulan daxala al masjid yowma aljumaa wa rasul sallallahu alayhi wa sallam yaxtub fa qaala ya rasul allah halakat al amwal wanqataat subul fadu allah yugisuna ibnu abbas nee na ibnu anas ibnu malik nee na benn bis yonente bi alayhi salatu wasalaam da doon xutba julli ajjuma benn waay daa di dugg si daan ne yow yonent yàlla bi alal jëpp yàqu na yoon yëpp dagg na mooy bekkoor moo am dara amatul kenn amatul foo jëm ay waay yow yonent ñaanal ñu yàlla yàlla teggil nu li tegu sunu kaw foofu yonent bi alayhi salaatu wasalaam gis ngeen ni ni mu yitte woo woon mbirum xeet wi xutba jumaa la xutba jumaa ni mu amee importance waaye waa ji ci biir xutba bi la yuuxu wax loolu yonent bi yonent bi xam li yëkkati waa ji nekk fa nekk fa di ko wax comme tey li ñuy dal nun naan ko amoo juma yonent bi dafa dagg xutba bi fa rafaa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaday yonent bi dafa dagg xutba bi yëkkati ay loxoom kaw asamaan fa qaala allahumma gisna allahumma gisna allahumma gisna ay yow yàlla xettalinu yow yàlla xettalinu yow yàlla xettalinu yow yàlla xettalinu foofu yonent bi di wax rek niir yi daal di déclenché wu ci suuf jëm kaw asamaan ñu leen di seen niir yi dem ba tiim asamaan si daal di ñuul kukk taw bi daal di dotteeku muy taw muy taw di taw Anas ibnu Malik nee na toog nañ juróom benn fan gisuñu jant ba beneen àjjuma bi yonent bi duggaat ci minbar bi commencé di xutba waa ji daal di duggaat daan ne yonent alayhi salaatu wasalaam jur yaa ngay dee ña ngay lab kër yaa ngay daanu ma ngay lab tool yaa ngay yàqu ma ngay lab wooy ñaanal nu yàlla yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di yëkkatiwaat ay loxoom allahumma xawaali alayna xawaalayna wala alayna allahumma ala al akmaami wa turabi wa butuni alawdiya wa manabiti alshajar qala fanqala'at wa xarajna namsi fi sams yonent bi alayhi salaatu salaam ne yow yàlla ndox mi yóbbul ñu ko ci xur yi yóbbul ñu ko ci keppaari garab yi yóbbul ñu ko ca tool ya yow yàlla tawal nu jàmm taw boo xamante ne jàmm dong lay nekk ci ñun ki doon nettali hadis bi nee na bi yonent bi ñaanee rek ndox mi daal di taxaw mu ne ñun ñëpp wa xaraj naa nam si ala sams ñun ñëpp ñu génn di dox jant bi daal di génn nu dox ñu jóg génn di dox ci suuf su wow si mbokk yi kon julli baaw naan sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam taamalu ibadallah li taraw kayfa yuhdisu l imaanu sadiq wal qulubu tahira waaye nañ xool bu baax hadis bi naka la ngëm yàlla gu dëggu di def ci xol naka la ngëm yàlla gu dëggu di def ay dënn jullit di def ay làmmiñu ñuy jéggalu yàlla istijaabatal mawla al aajil xol yi bu fekkee ngëm yàllaa ngi ci dënn yi bu dee ngëm yàllaa ngi ci làmmiñ yi jégglu yàlla di wax astaghfirullah su fekkee baatu jégglu boobu dëggu na kon bu nu ñaanee rek yàlla daf nuy may yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na saad ibnu abi waqaas saad ñëw na ci yonent bi ne ko sama yaay de dafa bëgg ma génn ci lislaam waaye man xam nga ne awma kenn ku dul moom bal sax fa ma ko bàyyi nii ma nga tëdd ci naaj bi nee na su ma génnul ci lislaam mu faatu ci naaj bi te yonent man sama yaay rek laa am teeg maa ñaanalal sama yaay yi mu dugg ci lislaam yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di yëkkati ay loxoom daal ne allahumma ahdi umma saada yow yàlla yal na nga jubal yaayu saad yow yàlla yal na nga jubal yaayu saad yow yàlla yal na nga jubal yaayu saad saad nee na ma jóge ci yonent bi ñëw rek fekk sama yaay toog ci keppaar gi yëkkati baaraamam jublu penk naan ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah saat kontaan mu daw di bégali yonent bi di ko wax sama yaay tuub na mu ñëw wax ko yonent bi ba pare mu ne yonent yow de gis naa nga ñaan yàlla yàlla may la waaw teeg maa ñaanal manit man mii su ma ñaanee yàlla may ma comme yow ndax xam naa ne yombut ndax yow yonent yàlla nga yow boo ñaanee yàlla dalay may yonent bi ne ko yaa saad a turidu an takuna mustajabu daawa da ngaa bëgg boo ñaanee yàlla may la mu ne ko waaw waaw mu ne ko atib mat amaka takun mustajabu daawa li ngay lekk na dagan saa yoo lekkee lu dagan soo ñaanee yàlla yàlla may la saat li ngay lekk na dagan mbokk yi ci téere boobu tudd arbauna nawawi gis nañ fa hadis benn waay boo xam ne ma nga yëkkati ay loxoom di ñaan yàlla ba poqotaan yi feeñ yow yow yow sama boroom yow sama boroom yow sama boroom waaye yonent bi nee na kii fan naa yustajaabu lahu naka la ko yàlla di maye li muy lekk dafa araam li mu sol dafa araam fi mu toog dafa araam li ko wër dafa araam fan naa yustajaabu lahu naka lañ koy nangulee nañ xoolaat suñu bopp ñun ñëpp nag góor ak jigéen mag ak ndaw ñii innahum qawmun taharu amwalahum min akli alharami walriba walriswa walghish fi almuamalat wa akli amwali alnas bilbatil wa anwa'i alhiyal wa taharu alsinatakum min alshahadati zur والايمان الفاجر والسب والغيبه والنميمه والفحش وغيرها من الرذائل مبكي جلدي نون ñep nanu ànd setal sunuy xol nanu setal sunu alal ci lekk lu araam lekk riba lekk ger lekk neexal wuruj ca jëflante lekk alalu nit ñi ci caaxaan ci ay dóorante ay martu ay pexe nañu setal sunuy làmmiñ ci seede fen wax lu dul dëgg jëwante tamante dëmm waat waat boo xam ne dara du ci dëgg di saagawante di jëwante rambaaj lii yëpp mbokk yi ay jikko yu ñaaw la yoo xamante ne ay jullit buñ koy def sikk nekku ci ne yàlla da leen di natt jadirun bina ibadallah war na ci ñun lu yell la an naxiisa qulubuna bil imani wa taa li yaxilla al xays bi ardina wa baladina ñaari julli lañ war a def julli gu njëkk gi du pour suuf si du pour ndox waaye pour sunuy xol la pour sunuy xol la booboo gën a yell an naxiisa qulubana mina bil iman ñu sàkku yàlla balaa ndox balaa suuf balaa tool yi balaa jur yi waaye xol yi ba pare ndax instant yi xol yi ñoo maral ngëm yàlla ku xool réew mi ni ñuy dundee xam ne xol yi ñoo maral ngëm yàlla ci weer wii nu génn mois de juillet fii ci tefesu géej bi fii ñuy tuddee Malibu ñeen fukki nit faatu nañ fi am na benn samedi ak dimanche juróom ñaari nit ñoo deewandoo te li doy waar mooy kii tëgg soirée mi ngi tëgg soirée ñii dugg ci géej gi ñi ngi dab dugg di dee sapeur rek leen di génne te soirée baa ngi continuer ci benn dëkk benn weer ñeent fukki nit faatu kenn yëgalu ko seen yaram ba tey jii boo demee tey la gën a raw dafa mel ne dara xewut ñooñu ndax buuxante jaamu yàlla moo tax ñu dee ndax utay ngërëmal yàlla moo tax ñu dee ana lan moo yóbbu nit ñi foofu lan moo tax dëkk bi na pat tey ci lii ñuy gis col gu bon gi nga xam ne kenn solatul foo tourné guddeeg bëccëg sa bët yi mu ngi tegu ci awra ngeen defe ne loolu yàlla dina ko bàyyi mu dem yàlla subhanahu wa taala wax na ci alquran alif lam mim ahasiba annas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun borom bi tabaraka wa taala wax na ci ñun nee na walaw anna ahla alqura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin min alsamai wal ard su fekkoon ne tey ngeen di réew ñi ñoom ñëpp ànd nañ gëm yàlla tabaraka wa taala gëm ko moytu ko yàlla mu ne dinaa ubbi barke bi nekk kaw asamaan bu leen fàtte ne doomu aadama li muy dundee nekkul ci kaw suuf wa fi samaai rizqukum wa ma tuadun yàlla lim nu dikk kaw asamaan la nekk moo tax sunu gëmee yàlla ragal ko moom yàlla yàlla mu ne la fataxna alayhim dinaa ubbi asamaan barke yi daal di rongalaat wàcc ci kaw suuf suuf si nekk ñëpp am jàmm kon ci kaw la nekk mbir yi ci kaw la nekk ki nekk ci kaw nag mooy yàlla moo nekk ci kaw téye mbir yi ci kaw su waa suuf normalé yàlla ubbi ko su waa suuf ñàkkee réglé yàlla tabaraka wa taala daal di koy tëj ixwata al iman walaw wa an law istaqaamu ala tariqati la asqaynahum ma an gadaqa su fekkonte ne ñëpp jub nañ jaar ci yoon bi yàlla bëgg borom bi tabaraka wa taala nee na dinaa leen nandal ñoom ñëpp ndox mu ne maññ istasqa al ibad falam yusqaw wa saalu falam yutu asfara zalika ala xubuti almustawa al iman allahu akbar bu nu ñaanee ñun ñëpp ñu ànd ñaan yàlla réew mi ñëpp ànd ñaan yàlla tuub jéggalu yàlla ñaan yàlla yàlla bañ ñoo may loolu li muy tekki mooy sunu xol yi am na lu ci nekk loolu lu muy tekki sunu xol yi am na lu ci nekk ci jamono yonent yàlla Moussa alayhi salaam Moussa dafa ànd ak nit ñi ba ci àll ba julli julli baaw naan ñaan yàlla tabaraka wa taala yàlla téye ndox mi mu ñaan ñu ñaan ñaan yàlla téye ndox mi Moussa ne yàlla lu tax mayoonu yàlla mu ne ko mooloo moomu toog dafa am kuma ci tooñ te feeg jéggalu wuma ndox mi du wàcc Moussa daal di jogaat jël xutba bi daan ne jaami yàlla yi ñun ñi toog fii am na ci ñun ku tooñ yàlla te yàlla nee na fekk jéggaluwu ko du indi ndox mi benn waay bu toogoon ci biir mbooloo mi daan ne man mii la daa di tuub fi mu toog jooy jooy yu métti daa di jéggalu yàlla ndox mi daa di wàcc Moussa daa di jàkkaarloog yàlla ne yàlla ah man de damaa bëgg nga won ma waajooju kan la waajooju tuub ba tax ndox mi wàcc yow yàlla wan ma kan la yàlla ne ko Moussa jaaxal nga ma Moussa ne yàlla la la mu ne ko waaji bi ma tooñee wanu ma la ko bi ma ko baalee ma la ko yoon waaji bi ma tooñee waxuma la kan la naka laa koy baalee ba pare ma ni la waaji la Moussa man tamit weesu naa foofu kon mbokk jullit yi ñun ñëpp kenn ku nekk suñu bopp jàppal ne yow yaay waajooju fi nga toog góor ak jigéen mag ak ndaw jéggalul yàlla subhanahu wa taala ñun ñëpp bu nu àndee jéggalu yàlla subhanahu wa taala jéggala kon la alayna an naxla anna ardiyatu alxataaya wa najtarad min alzunubi wa mazalim li rufia ma bina ñun ñëpp ñoo war a ànd jéggalu yàlla ndax yàlla tabaraka wa taala génne ñu ci bàkkaar yi ñu summeeku suñuy bàkkaar delloo tooñ yi ngir yàlla tabaraka wa taala teggil ñu li nekk ci ñun ixwatal iman Muaz ibnu Jabal mooy nettali nee na kuntu moom ibnu Umar Abdullahi ibnu Umar mooy nettali qaala kuntu ashara ashara ruxtin min almuhajirin inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa aqbala alayna rasulullah fa qaala ya maashara almuhajirin xamsun iza btulitum bihinna wa audu billahi an udrikuhunna ibnu Umar nee na man maa ngi bokkeelu ci fukkeelu groupe fukkeel ña fukkeel fukkeelu groupe ca ña jógee woon muhaajir jóge makka di gàddaay jëm Medine keroog ba groupe yi di mat fukk man damaa bokk ci mbooloo mi leen fukkeeloon Abdullahi ibn Omar mooy nettali waaye nee na yonent bi bu mu séenee ñuy ñëw def ñuy wax ma asaral muhaajiriin yéen waa muhaajiriin yéen a jógee makka di ñëw Medine tey di gàddaay waaye na ngeen yëg ne juróomi mbir a ngi nii su leen ko yàlla nattoo su ko yàlla tegee seen kaw man yonent bi de maa ngi muslu yàlla juróom yooyu yàlla bu mu ma fi fekk allahu akbar jamono bu leen yàlla di nattu yooyu yàlla bu mu ma fi fekk juróom yonent bi ne abdullah ibn omar mu ne ko waaw mu ne ko lam tuzhiru lfahisha fi qawmin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim taa'un wal awja allati lam takun madat fi aslafihim allazi madaw saa yu ngeen tàmbalee di def ay ñaawtiif ngeen koy feeñal ci mbedd yi njaaloo ci mbedd góor jigéen ci mbedd naan sàngara ci mbedd def yaramu neen dangiral futteeku ku nekk di def lu la neex bis bu ngeen duggee ci loolu ba ngeen feeñal ko ci biti yàlla dina leen teg ay jafe-jafe ay jàngoro yoo xamante ne seen imaam xamuñu ko woon te loolu am na wala amul ñaata nit ci ñun ñooy feebar dem hôpital analyse rajo lépp ñu ne la gisuñu li la dal te ku xool kii xam ne léegi mu dee lu ne nga dugg ci defal analyse nga def dama la nga def rajo nga def dama la nga def fibroscopie nga def kayit yi jalu tu vois li li jaaxal docteur yi mooy vraiment ñun jaaxale nañ gisuñu sa feebar feebar yoo xamante ne tey suñuy maam xamuñu ko woon tey loolu la ñu yàlla teg lu tax ndax la yonent bi waxoon moo dëgg ci ñu kaw mu ne walam yanqusul miqyaala wal mizan illa uxizu bi sinin wa siddati almauna wa jawri sultaani alayhim bis bu ngeen demee bis bu ngeen demee ba wàññi nattukaay yi di wàññi blanche yi na ngeen yëg ne yàlla dina leen xañ taw ca asamaan te na ngeen yëg ne bu doon du bàyyi may du taw bu doon du bàyyi may dootul taw te na ngeen yëg ne su ngeen demee ba jamono yooyu yàlla dina leen nattoo ay buur yu dëng nguur yu dëng la waa Sénégal lan la ñuy jooy jamono yëpp depuis kañ ngay commencé jooy nguur yu dëng kañ la ko yàlla di teggi parce que li yàlla waxoon ci ñun yonent bi waxoon ci ñun moo tegu suñu kaw ixwatal iman yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne bis bu ngeen demee walam yamnau zakata amwalihim bu ngeen demee ba tere azaka na ngeen yëg ne dinañ leen xañ ndoxu asamaan su doon du bàyyi may dootul tawati mu ne walam yanqudu ahda allahi wa ahda rasul illa sallata allahu alayhim aduwan min gayrihim su ngeen demee ba sànni yàlla lim bëggoon ngeen sànni sunna yonent bi yàlla dina nattu seeni noon seen kaw ndax mbokk yi yii yonent bi waxoon yëpp abdallah ibnu omar am na wala amul mu ne ko juróomeel bi wa man lam tahkum a'immatuhum bi kitaabillah wa yataxayaru ma anzala allah illa jaala allahu baasahum baynahum bu ngeen demee ba tak atte yàlla tëb fële kenn du atte woo li yàlla wax yàlla dina def seen musiba seen biir ngeen di rayante guddeeg bëccëg dugg ci tribunaux yi yéeg wàcc du mujj fenn ixwatal iman wa hal fi dunya wal axira sururun wadda illa bi sababi zunubi wal maasi lan moo tax musiba aduna di yàqu lu tax alaxira nit di yàqu ban musiba mooy yàq aduna ak alaxira du leen dul ay bàkkaar yu bëri bàkkaar kese mooy yàq aduna yàq alaxira loolu nañ ko xam borom bi nee na wa kam qasamna min qaryatin kaanat zalima wa ansha'na ba'daha qarnan axarin wa tilka alqura ahlaknahum lamma zalamu borom bi tabaraka wa taala nee na ñaata réew ngeen gis ñaata dëkk yu ngeen gis yoo xam ne dañoo naatoon dëkk ya ma teg fa sama mbugal dëkk ya mujj alku ñaata ñaata wa tilkal qura dëkk yaa ngi ne la ngeen leen di séen ahlak naahum alak naa yooyu yëpp kañ lamma zalamu bañ ma tooñee ixwaani fa bil maasi tazulu niqam ci mooy yàlla la musiba di wàccee ci kaw suuf jàmm dootul am ci musi ci mooy yàlla la ñàkk di amee ci mooy yàlla la nattu di amee ci mooy yàlla la feebar di amee inna allaha la yugayiru ma bi qawmin hatta yugayiru ma bi anfusihim yàlla nee na duma changé ay nit lu dul nit yooyu ñoom ñooy changé seen bopp zalika bi anna allah lam yaku mugayiran nicmatan anamaha ala qawmin hatta yugayiru ma bi anfusihim wa anna allaha samiun alim na ngeen yëg ne yàlla tabaraka wa taala du changé xéewal bu mu may dëkk lu dul waa dëkk boobu ñoo changé seen bopp ci mooy yàlla ci ay bakkaar su ko defee yàlla daal di téye xéewal gi wa nabiyu sallallahu alayhi wa sallam xazara min al maasiya yonent bi mooy tandikuloo ñu ay bakkaar yonent bi mooy tandiloo nañu ay bakkaar yonent bi dénk na muaz ibnu jabal mu ne ko wa iyaaka wal maasiya mooy tandikul bakkaar yow muaz ndax bakkaar dafay remplacer meru yàlla te yàlla bu meree ay nit du baax ci ñoom mbokk yi yàlla bu meree ay nit day téye ndox mi su téyee rabu àll yi am jafe-jafe su tëyee tool yi am jafe-jafe su tëyee dex yi am jafe-jafe su tëyee teen yi am jafe-jafe te loolu yëpp lu ko waral mooy zahara alfasaadu fi lbarri walbahr bima kasabat aydi nnaas li yaziqahum baada alladi amilu laallahum yarjiun borom bi nee na suuf si fees na dell ak bakkaar géej gi fees na dell ak bakkaar te loolu yëpp doomu aadama yi ñoo ko faggu waaye moo tax man yàlla dinaa leen tëg mbugal ndax ñoom ñu daal di dellusiwaat mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala na ngeen yëg ne bàkkaar bu bëree doomu aadama yi bu ñu moyee ci kaw suuf rabu àll yi sax dañ koy yëg ba ci seeni biir yi pax jaan yi dañ koy yëg jaar yi dañ koy yëg mbëtt yi dañ koy yëg lépp a koy yëg su boobaa ñoom rabu àll yooyu dañuy ñaan doomu aadama alkande ne yàlla yàlla na nga alak doomu aadama ndax sunu ndox ñëw yow yàlla doomu aadama yàlla na nga ko fi jëlee ndax ndox ñëw loolu nañ ko xam ñu mooy tëndiku mu ne hatta al bahaim inna al bahaim la talan alusaat rabu ali dañuy ñaanal yàlla doomu aadama yi nga xam ne dañuy mooy yàlla yal na leen yàlla alak ndax lan ndax maral ixwatal islam man allazi la yaqaw fi lmasiya waaye lan mooy wax ji mooy kan ci ñun moo dul def bàkkaar ndax nit ci ñun màgg na ba du def bàkkaar ana kan ci ñun moo dul mooy yàlla ñëpp ay dofkatu bàkkaar lañ góor ak jigéen mag ak ndaw wallazi nafsi bi yadihi law lam tuznibu la zahaba allahu bikum wala jaa bi qawmin yuznibuuna fa yastaghfiruuna allaha fa yaghfiru lahum yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na bu ngeen dul woon maa ngi giñ man yonent ki nga xam ne sama bakkan bi ci loxoom la nekk su ngeen dul woon def bàkkaar danaa leen fi jële indi ñuy def bàkkaar di ma jéggalu ma leen di jéggal waaye lan mooy wax ji kull ibnu aadama xatta wa xayrul xatta ina tawaabuun doomu aadama yëpp ay defkatu bàkkaar lañ waaye ñi gën a baax ci defkatu bàkkaar yi mooy ñii tuub seen bàkkaar def bàkkaar bonul la bon mooy nga sax ci bàkkaar bi toog ci boof ci doo ko jéggalu doo tiit doo ragal ba pare di yaakaar yërmande yàlla doomu aadama bu defee bàkkaar day gaaw tuub والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون borom bi nee na ñi nga xam ne bu ñu defee bàkkaar wala ñu tooñ seen bopp dañuy jéggalu yàlla tudd yàlla jéggalu ko ñu rëccu seen bàkkaar yooyu borom bi nee na ana kan mooy jéggale ay bàkkaar ku dul man mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ñun ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw nanu ànd jéggalu yàlla subhanahu wa taala suñuy bakkaar nañu saxal sunu làmmiñ istighfar istaghfiru rabbakum innahu kaana ghaffaran yursilu sama alaykum midraran wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara mbokk yi ci yàlla nañ jël baag yi nañ jël paan yi nan ko root ba mu fees waaye ñu sotti ko ci suñuy bakkaar ndax mu mën a faye nanu root baag yi ba mu fees nanu root paan yeeg siwo yi ba mu fees waaye fan lañ koy sotti du ci ndaa yi du ci tool yi du ci yaram yi ci bàkkaar yi lañ koy sotti ndax tàngaayu bàkkaar yi mën a fay ndax yàlla mën ñoo yërëm mbokk jullit yi nanu tuub ci sunuy biir xol ñun ñëpp ñu ànd jéggalu yàlla ñaan ko alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi ddin la ilaha illa allah yafalu ma yurid لا إله إلا الله الولي الحميد لا إله إلا الله غياث المستغيثين وارحم المستضعفين نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم أغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا حنيعا مريعا مريعا غداقا مجلا آما نافعا غير ضار عاجلا غير عاجل اللهم لتحيي به البلاد وتغيث به العباد وتجعله بلاغا للحاضرين والباضي اللهم سقيا اللهم سقيا رحمة اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك وانصر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم ارد لنا الدرء وانزل علينا من بركاتك واجعل ما انزلته علينا قوة لنا قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع أنا بذنوبنا فضلك اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع أنا بذنوبنا فضلك اللهم أكشف عنا من البلاء ما لا يكشف إلا أنت اللهم أرحم الأطفال الرضيع والبهائم الطريق وشيوخ الركع وارحم الخلائق أجمعين اللهم أرسل لنا سحابا ثقالا وأنزل لنا مطرا مدرارا وأخرج لنا حبا ونباتا وجنات ألفافا اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والربا والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا وصلوا وسلموا على رحمة المهداد ونعمة المسداد محمد بن عبد الله فقد أمركم الله تعالى بذلك فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله اقتدوا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان يقلب رداءه حين يستسقي مبكي تي الله dundal leen sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam te mooy ngeen wëlbati seeni dira yére yi kaw yére yi ngeen teg ci kaw ngeen wëlbati ko li féete woon kaw féete suuf ndeyjoor bi ngeen di tàmbalee jëme càmmoñ góor ñi kese la jigéen ñi bokk ñu ci bu ñu paree ñun ñëpp ñu jóg jullu penku daal di tàllal suñu loxo ñaan yàlla ku nekk ñaan